يا الله يا من لا إله جب بجاهي سؤالي أنت الرحيم الملك القدوس لك علي الشكر والتقديس أنت السلام بالمقتدر وبالمقدم وبالمؤخر أول يا آخر أنت السابق bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina mawlana muhammadin alamin wa ala alihi wa ashaabihi altayibin altahirin wa man ittabaahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ci nu yóbbu lislaam bi gën a tedd di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu euh, sunu waajur di sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Amin ko jàllale ci mboolem njaboot gépp rek di nuyu kilifa yu tedd yi fi teew yépp di ci ràññee waa kër Serigne Abdul Baaqi yi nga xam ne moom lañu terale jataay bi te waa kër gépp waa kër Serigne Masamba ñépp ànd ak ñoom jataay cër boobu ci njiitul Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mahmadan ñu leen di nuyu baax ñépp di leen ziar di nuyu mbooleem ñi fi teew di am mbégte ci ànd ak yéen jataay bii di waxtaane benn tomb boo xam ne buñ ko dee waxtaane ñi ngi waxtaane jëmmi boroom bérab bii ndax ràññiku woon na ci jikko yu tedd yépp waaye jikko ji ñu tànn tey ji bëgg cee fàttalante moom mën nañoo wax ne moo gën a ràññiku ci ay jikkoom mooy woyof ak toroxlu di waxtaan ci tam boobu rek mën nañoo wax ne ci jëmmam la ñuy waxtaan ndax jëmmaloon na ko jëmmal yiin woo xam ne néewaa na ku ko ni jëmmale yàlla na ko yàlla dolli leer dolli ko njéggal ak yërmande ak ngërëm dolli ko mboolem magam yu tedd yi ak njabootu Sëriñ Tuubaa yépp ak jullit jiitu yépp xam naa ngir bañ a guddal lool ñu wax ne waxtaan wi ak nan la dikkee ci alquran ak sunna wax ay xaajam ay xeetam wax as lëf ci ay misaal yu koy tegtale joxe it ay melokaan ay misaal ci ay jëmm yu toroxlu woon teñ mën a ci ñoom tàmbalee ko ci ki gën a tedd ci ñàlla bind sayidna muhammad sallallahu alayhi wa euh, ba yegg ci boroom pénc mi su ko defee nag tomb bu mujj bi nekk njariñ li nga xam ne moo nekk ci toroxlu toroxlu mooy nit ki wàcce boppam daraja ji ko yàlla jox mu bañ koo wane woo bañ koo jëfandikoo wàcc wàcc di wàcc ci daraja jooju mu ba mu di ca wàcc bañ caa bañ koo waxe bañ koo doxe bañ koo jëfe xanaa wàcce boppam ba tolloog doomu aadama yi muy jaxasool ba ñépp ñeme ko mu mën a jëflante ñoom loolu kon mën nañu wax rek mooy toroxlu mu koy mooy nit ki wàcce boppam wàcce goo xam ne da koy def ngir yàlla waaye du doon ak doyadi du doon ak mànkite du ko defit ci anam bu mu ko wërta defe jëmmi baatu toroxlu ñëwul ci alquranul karim waaye tudduñu baat bi ci alquran waaye maanaam yi ñëw na ci alquran kon ay baat yu bari ci alquran yuy ñëw di tegtale maanaama dikk na ci alquran doonte baat bi moom dikk ci bokk na ci di suñu borom di wax subhanahu wax yonente bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam waxfid janaaxaka liman ittabaaka min almuminin wàcceel sa bopp ba jullit yi la topp mën a jëflanteeg yow mën a jot ci yow ba mën a jëflanteeg yow wax fit janaaxaka lil muminin am na wàccal sa bopp ba mën a jaxasook mbooloom jullit mépp kon wàcce sa bopp ba jaxasook ñi la yàlla booleel ñu war a jariñu ci yow war a ànd ak yow nga wàcce sa bopp ba ñeme la jot ci yow mën a jaxasoog yow loolu lañu digal yonent bi sallallahu alayhi ci aaya bi te loolu mooy toroxlu wax na ko feneen wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum na nga muñ jaxasoog néew doole ak ñàkk ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla guddeeg bëccëg ngir jëmm yàlla wàcceel sa bopp muñ ba jaxasoog ñoom te bu leen ëppalee sa bopp bu leen sa bët bu jël loolu it toroxlu lay tekki tagg na ay nit ci alquran wa isa wax ne wa ibadu rrahmani alladina yamshuuna hawnan wa isa xaatabahum aljahiluuna qaalu salaama mu ne dëgg-dëgg jaami yàlla yi yàlla gërëm mooy ñi nga xam bu ñuy dox ci kaw suuf dañuy dox doxiinu ku woyof ku wàcce boppam koo xam du wane ak rëy du wane ak puukare te itam bu leen ko xamul waxee ñoom waxin wu dul noona duñ toppante waaye dañuy wax rek waxi maslaa ju leen di génne eh, ci ab jaamaarloo loolu lépp day tegtale toroxlu am na ci alxuraan wala tusaayir xaddaka linnaas wala tamshi fil ardi maraxan inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur bul fenati di wëlbati sa kanam boo jàkkaarloog nit ñi mel ni yaa leen gën mbaa waroo wax ak ñoom bul dox ci kaw suuf it di puukarewu di wanewu di feeñal ab dayoo ndax yàlla bëggul kuy puukare bëggul kuy damu kon loolu lépp ay aaya la yi wane eh, toroxlu ni mu amee solo ak ni ko yàlla bëggee di ŋàññ itam jikko ji nga xam ne moom la safaanool te mooy di ak rëy nit ku yëg boppam jàpp ne moo féete kaw ñi muy jaxasool walla moo leen moo leen gën euh, bu dee ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom baat bi ñëw na ci lu baree baree baree bari bokk na ci fi muy wax ne awxa llahu ilayya an tawaadaau xata laa yafxara axadun ala axad xata wala yabgi baadukum ala baad mu ne yàlla wax yu na ci moom yàlla wàcce na ci moom ay wax di ko digal di wax na nañu toroxlu na nit ñi toroxlu na ñuy wàcce seen bopp yëg ne ñoom ñépp ñoo ci doon ay jaami yàlla bu kenn damu ci kaw moroomam bu kenn bew ci kaw moroomam bokk na ci itam li mu wax ne ma naqasat sadaqatun min maal وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله nee na joxe azaka du wàññi alal jéggale du tax a torox waaye day tax nit ki yàlla gën koo yëkkati gën koo teral waaye toroxlu itam wàcce sa bopp képp ku ko def ngir yàlla yàlla dana la eh, dana la yëkkati euh, kon am na fu muy wax it euh, ci ay xadis kon yu bëree bari taallamu al ilma wa taallamu li ilmi sakinata wal waqaar wa tawaadau liman tataalamuna minhu sàkku leen xam-xam te sàkk te jéem a am jikko yi tax a am xam-xam mooy amuk dal akuk wegeel te ñi leen di xamal nangeen toroxlu ci seen kanam kon ay xadis yu bari dikk na di soññee ci toroxlu di ko tagg di tagg yi nga xam ne ñoo koy def toroxlu nag ay xeet la mën nañ ko def ñaari xaaj toroxlu gu baax bu ñu rafetlu di tagg boroom ak toroxlu goo xam ne moom euh, rafetlu weesu ko tey dañuy ŋàññi ku koy def toroxlu gi nga xam ne moom lañu santaane te di ko rafetlu di ko taggee nit ñetti xeeti toroxlu la bu jëkk bi mooy toroxlu bu yàlla diglee nga toroxlu jëfe ndigal la ngir xam ne ab jaam nga bu boroomam digal nga war a jëfe ndigal la ak toroxlu bu yàlla teree nga yëg ne ab jaam nga bu boroomam tere dara da ko war a daal bàyyi kon toroxlu ci topp ndigal ak bàyyi tere ndax gàntu ndigal ak jëfe tere ci ak rëy la bokk ci ak rëy la bokk xam ngeen ne iblis laanahullah moom mi yàlla rëbbu dàq ko ci aljanna la ko ko tegoon mooy dañ koo digal mu gàntu dañ ko digal mu sujjóotal aadama mu gàntu mu bañ féeteerlu lànk ndigal ñu ne ko lu tax defoo ko mu ne maa gën ki ñu may sujjóotaloo maa ko gën kon ak rëy a tax mu gàntu ndigal kon toroxlu mu ngi tàmbalee ci nangoo jëfe ndigalul yàlla nangoo bàyyi ay tereem kon loolu mooy toroxlu torox la gu ñu santaane gu ñu sàkku toroxlu gi ci des mooy nit ki di toroxlu ci màggug yàlla nit ki di fàttaliku màggaay sunu boroom ak rëyaayam ak sañ-sañam di fàttaliku nag moom ni mu safaanoog sunu boroom ni mu lotte ni mu toroxe ni mu aajowoo lool ndimbalul sunu boroom ci waxtu ne ci fànn gu ne muy fàttali loolu fàttali boppam loolu di dellu ci boroomam di tuub di jéggulu di am kersa ci aw melokaanam euh, ci digganteem ak boroomam loolu it ak toroxlu la ndax yonent bi saa sam mi ngi xadis boo xam ne kursi la wax yàlla la ji yonent bi saa sam nettali di wax ne alkibriyaa ridaa'i wal azamatu izaari fa man naasaani waaxidan minha xasabtuhu fi naar mu ne suñ bor yàlla nee na rëy ak rëy sama malaana sama malaan la sama malaan la sama làmbaay la màggaay sama teraxlaay la maanaam ñaari melo yi moo ko jagoo ak rëy ak aku màgg ñaari képp koo xëccoo nga ak man benn ci ñaar yooyu ma sànni ko sawara kon nit ki di yëg màggu yàlla ak rëyaayam moom muy toroxlu di ragal di rus di am kersa Euh, ci yàlla loolu it ak torox la goo xam ne bu ñu sant la kon ñaari torox yépp mi ngi jëm ci mu ngi nekk ci diggante jaam bi ak boroomam ndax toroxlu it ci yàlla la la yàlla moo ca ki gën a matay toroxlu mooy yàlla mi nga xam ne moom mooy ki tedd mooy ki màgg mooy ki kawe nga xam ne ku tedd moo la teral ku màgg it moo la màggal ku kawe moo la yëkkati kon toroxlu yàlla moo jiitu ci toroxlu bi ci toppaat ñetteel bi ci ñu sant mooy toroxluul doomu aadama yi maanaam wàccee sa bopp ba mën a jaxasoo doomu aadama yi te doo leen xeeb doo leen ëppale sa bopp te loolu nga di ko def ci anam goo xam ne ak manki du ca am te yàlla rek it tax nga di ko def loolu mooy torox yi nga xam ne moom lañu moom lañu sant torox li nga xam ne nag dañ koy ŋàññi mooy nit ku toroxal boppam bàyyi bàyyi li ko topp bakkanam topp bakkanam topp bànneexam topp seytaane ba mujj nekk ko torox koo xam ne dafa mel ni ku fàtte teraanga ji ko boroomam defal ak doon gi ma doon a doon jaamu yàlla war a not bakkanam war koo féete kaw war koo jaarale ci ndigali yàlla yi euh, kon koo xam daal ab bakkanam da ko ngalaab war ko di ko dañal ak toroxlul boroom alal mbaa boroom daraja joo xam ne darajaam daraja yi ju lislaam daraja àdduna rekk la nga toroxlul ko ngir bëgg ci alalam mbaa bëggal bëgg mu mu baaxe la ci dara jaam toroxlu nitu àdduna ak boroom alal loolu toroxlu la guñu ŋàññi moo tax sëriñ bu mag bi di wax ne tawaadoon ilal ganiyi saalixi yuzhibu sul say diini kulli saalixi toroxlu ci kenoom boroom alal joo xam ne nit ku baax la loolu bu ko nit defee ñàkk na ñaari ceer yi diineem deux ceer diineem bu defoon diineem ñetti xaaj ñaari xaaja moom ñàkk na ko bu torox boroom alal joo xam nit ku baax la mu def ko ngir bëgg ci alalam ama tawaadon li zalimin fala yubqi min ad-diini layaadan faqila mu ne nag bu fekkee ne nit ki ngay toroxlul moom ngir bëggal ko alal bëggeel ko ci alalam kooka moom du nit ku baax du nit ku jub ne kooka moom ku ko def dara ci deseetul dara ci diinam diinam jëpp ñàkk na ko kon loolu mooy torox gi nga xam ne moom lañu moom lañu ŋàññi toroxlu nag am na ay anam am na ay jëf ak i melokaan yu koy màndargaal yoo xam bu ko nit dee defe ñu mën koo jàppee ku toroxlu bokk na ca di war maal say kilifa ak di leen màggal képp koo xam moo la féete kaw ëpp la daraja yàlla jiital ko ci sa kanam nga nangu loola jox ko cër ba mu am ci yow ngir jëmm yàlla loolu bokk na ci ak toroxlu bokk na ci toroxlu nangoo toog ak nit ñi nga xam ne ñu ñàkk lañ di waxtaan ak ñoom mel ni kenn ci ñoom doo xàmmee sa bopp ak ñoom bokk na ci toroxlu nangoo bokk ak way ñàkk yi di lekk wala nit ñi nga xam ne daal mel na duñ say nawle nga mën a bokk ak ñoom ci lenn ndab di jëfandiku di lekk loolu bokk na ci ak toroxlu bokk na ci toroxlu nangu dëgg nga xam saa yoo waxee ngi mu wax la dëgg nga nangu ko doonte ki ki la wax dëgg gi euh, gone la gone la gu ndaw waaye li mu la wax dëgg la boo toroxloo da bokk ci tax nga nangu waxam joojee ki ko wax sax ku réer la amul xam waaye li mu wax moom dëgg la yow nga doon boroom xam-xam kilifa nga nangu dëgg googu bokk na ci ak euh, toroxlu bokk na ci toroxlu itam booy wax nga bañ a yëkkati sa kàddu bañ koo diisal bañ a mel ni ñi ngay waxal ah, ñoom ñépp yaa leen fare ko wala yaa leen gën kon di suufeel sa kàddu ci boo dee wax loolu itam bokk na ci ah, loolu ci xeeti torox yi la la bokk ah, alxuraan mi ngi tere kuy yëkkati kàddoom ndax nee na kàddu gu xumb gu tar day niroog kàddug euh, mbaam kon loolu it wàcce sa kàddu di ko suufeel ci sa sa waxin loolu bokk na ci ak toroxlu bokk na ci toroxlu itam foo fekk ku aajowoo ku ko dimbale lu mel ni mag mu néew doole walla ku am laago euh, nga jàppale ko dimbale ko ba mu faj ajoom loolu itam bokk na ci ak toroxlu euh, bokk na ci toroxlu itam nga bañ a wane lenn loo xam ne yàlla defal na la ko loo xam ne yaa ko sute nit ñi nga xam doo gis benn ngëneel bu ne ci yow wala benn melo wu kawe woo xam ne war nga mën a gis ne yaa ko gën a nit ñi nga bañ di ko gis te ku la ko bëgg wan it nga jëlale ko bokk na ci torox itam koo gis rek nga jàpp ne moo la gën koo gis rek jàpp ne am na lum la gëne koo gis rek jàpp ne am na lum la gëne jàpp ne yow daal yaa yées ci ñi yàlla bind yaraw na anfusahum duunal wara abadan wa annahum lam yaliqu bil karamati wa annahum absaxul fustaaqi kullihimu wa annahum lam yaliqu bil ijabaati loolu itam bokk na ci ak Euh, ak ak ak toroxlu kon yëpp ay misaal la yoo xam ne day wane ak te bokk ni toroxlu itam bañ a fonk sol ay yére yu rëy bañ a bañ a bañ puukare ak bañ a rëy ci am col bokk na ci ak toroxlu dikk na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne képp koo xam ne am na xeeti yére yu foor yoo mën a am nga bañ koo wut ngir toroxlu bu yomal xiyaamee ba ñépp teew suñu borom dana la woo ba ñépp ba nga jóg ñépp di la séen mu wan la ci koddaay yi ngëm yàlla yi ne la tànn ci bu la soob nga tànn ko ñu jox la ko loolu it bokk na ci e, e, kon bañ a fonk bañ rëy daa bañ a fonk am col ak kii bokk na ci xeet yi toroxlu bu ko defee nag bu ñëwee ci misaal ay misaal ci ay jëmm yu toroxlu ñu ngi koy tàmbalee ci ku tedd ki ki nga xam moo gën ci ñi yàlla bind sallallahu alayhi wa sallam te yàlla tagg ko ci jikko ju rafet ku toroxlu la woon ku wàcce boppam la woon sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha laaj nañ ko ne ko nan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam meloon ci biir këram mu ne moo daa liggéeyal waa kër gi lépp lu yitteey waa kër gi moo ci daa taxaw waaw lépp lu ku dëkk ci kër gi lépp lu sa yitte rek mooy taxaw ci yitte joojee defal la ko maanaam mel ni mooy surgëb waa kër gi bu julli jotee mu dem julli ji neen loolu la fa nekkee woon daana ñaw ay mbubbam mbubbam daana xotti ko defi sagar mu di ko ñawaat di ko sol dàllam daana dagg mu yut ay waro di ko ca def di ko sol daana tëdd ci lal bu wow muy marqué ci aw yaramam bu génnee marqué ki eh, jeexit ya di feeñ ci jëmmam Seydina Usmaan bin Affan radiyallahu anhu nee na ànd na yonent bi sallallahu alayhi ci tukki ànd ak moom ci lu dul tukki waaye daf daan seeti ñi wopp di dem ca armée di gunge ñi faatu di ànd ak ñun di xare ku bari lu mu daan tudd yàlla la ku néew waxi mbërënt la ku yàggu julli la xam naa julli naati la guddi ku daa gàttal ab xutbaam la daawul jomba ànd ak ku ñu yilif ku góor mbaa ku jigéen koo ko jàpp ci loxoom di wër ak moom dëkk bi ba aajoom faju nee na loolu bokk na ci jikko yi ku tedd ki sallallahu wa sallam Seydina Abdullah ibn Abbas nee na dégg naa ci Seydina Omar muy wax ca muy xutba ca mimbar ba mu ne yonent bi sallallahu alayhi nee na bu leen ma jay nii nasraan yi jayee Isa ibnu Maryam de leen wax rek ne moom dee leen ma tudde rek jaamu yàlla bu yàlla yónni laa tutruni kama atrati nasara Isa ibnu Maryam qulu abdullahi wa am na jigéen ju ma a ñëw am na nit ku mas a ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ko ne jàkk daraja ji ak màggaay gi dafa tax waa ji day lox day lox ba tàggoog sagoom yonent bi sallallahu alayhi ne ko defal ndànk jigéen a ma jur joo xam ci waa Quraysh gii la bokkoon daana daa lekk ay seel nit rekk laa kon loolu bokkoon na ci ak ak ak ak bu ñu ñëwee ci saxaaba yi dañ ci jël kenn rek mooy Seydina Omar ibn Xataab radiallahu anhu mas ànd ak mbooloo ñu jëm baytul maqdis ànd ak Seydina Abu Ubayda ñu dem ba ci kaw ba ci yoon wi ñu fekk ndox mu baree baree bari mu taa am xuus Seydina Omar su summi ay botam takk ko ci baatam wàcc gileem gi mu waroon di ko mat xuus xuus daal xuus ci biir ndox mi ba jàll Seydina Abu Ubayda ne ko lii dey neexuma li nga def nii neexu ma ndax bu ma sañoon jàmbur yi nga xam ñoom lañ jëm te duñuy jullit ah, du ñu la yem wax ju mel noonu mu ne ko yow kàddu gi nga yëkkati bu ko keneen yëkkati woon ku dul yow mii danaa la def loo xam ne euh, ñépp danañ ci waaru ba kenn dootu waxati lu mel noonu daal xanaa xamoo ne ñun ñoo gënoon a torox ci nit ñi yàlla teral ñu buñ bëggaatee nag teraanga yàlla te jaaruñ ko ci toroxlu ci ci ca ca la euh, te defuñu nañu yàlla terale la tax yàlla tey buñ ko deful di ko di sàkku teraanga ci leneen neen su boobaa yàlla daf ñuy toroxal kon loolu bokkoon na ci toroxlu Seydina Umar ibn bu dee ci ñëw ginnaaw bi am na ku ñëw Seydina Uways al-Qarani fekkewul gisul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci zaahir waaye fekke na jamonoy Seydina Omar yonent bi dana leen woo daf leen waxoon ne am na ku ñuy wax Uways Uways ibnu Amir wax ci moom ay tegtal ne leen yaman la nekk wax si naa war ne ko su yàlla dogalee nga gis ko na nga fexe mu ñaanal la soo ko manee ndax moom lu mu dogu yàlla fekk ko ca Seydina Omar daan def saa yu mbooloo jógee yaman ñëw rek mu laajte ne ndax ku ñu wax Uways mi ci seen biir ñu ne ko déedéet ba am bis mbooloo ñëw moo xam ne Uways sama ci seen biir ñu wan mu laajte mu ne axakay mu ne ko yoway Uways mu ne ko waaw Uways na Amir mu ne ko waaw mu ne ko yaa ngi bokk ci Muraad ab fameem la mu ne ko waaw mu ne ko yaa ngi bokk ci xaran mooy ak giiram mu ne ko waaw mu ne ko da ngaa sa siti yàlla saafara la sa yaram bépp wéraat delloon mel na meloon ba des benn tërgën buy tolloo kub mu ne ko waaw mu ne ko am nga waajur wu jigéen woo xam mi ngi dund mu ne ko waaw mu ne ko damaa déggoon yonent bi sallallahu alayhi ne am na ku ñuy wax Uways ibn Amir bokk ci Muraad bokk ci xaran mas naa siti ba yaram wépp daj yàlla saafara ko ba mu des tërgën buy tolloo kub am na waajur jigéen woo xam ne fonk na ko lool teral na ko ba baax na ci moom lool waaye kookee de lu mu dogu yàlla fekk ko ca soo ko gisee nanga fexe mu ñaanal la Seydina Omar daal di wax Seydina Oys ne ko ñaanal ma ñaanal ma yàlla jéggal ma Seydina Oys dal di koy ñaanal euh, loolu danga nga ci gisee toroxlu Seydina Omar moom jamono jooju moom mooy xalifa bi gan ñëw goo xam ne kenn xamu ko euh, ci ñim àndal ak ñim fekk si mu wax ay qualitéem ba noppi taal ko loo xam ne ko ñaanal ma ba ko ñaanale ba noppi ne ko foo jëm mu ne ko Kuufa laa jëm mu ne ko teemalaa bindal bataaxel boole laa gouverneur ba fa nekk ndax mu jox la sa wàccuwaay mu ne ko bàyyi ma rek ma raaxaloo ci biir nit ñi doon kenn ci nit ñi kañ bañ maa xam loolu moo ma gënal akoonu fi xabra innaasi ahabu ilayya mu daal di ànd ak waa Koofa dem Koofa ba ci déwén sa am mbooloo mu jóge Koofa ñëwaat aj si Màkka gis Seydina Omar mu laaj la ne ana Uways ibn Aamir ka ko waxoon am ku ko tontu ne ko ma nga fa de waaye ma nga dëkk ci néeg bu rab ku ñàkki bagage la amul dara mu daal koy nettali xadis bi yonent bi sallallahu wax ci moom kooka daal dellu ca Uways daal di ko ne ñaanal ma Uways ne ko yow mii yaa ma war a ñaanal ndax yaa jóge ci barab yu sell ya mu ne ko ñaanal ma rek mu ne ko yow mii war a ñaanal ndax yaa jóge ci barab yu sell ya daal koy nettali xadis bi yoon bi Seydina Omar wax Seydina Aws daal di koy ñaanal ba xabaar ba siiwee nit ñi xam ko mu daal di teg njëm ne mes kenn gisatu ko gis nga ki am kooku daraja ji mu am ci sunu boroom ak ni mu bëgg a wàccee boppam ba kenn du ko xam bu ñëwee ci histoire bu gën a jege sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu daana toog ci suuf toogee kuy ku joofeerlu day toog ci suuf buy waxtaan di maasale suuf si di rëdd ak tomb daana tàngal ataay ci loxoom di ko jox kenn nit wala mu tàngal kafe ci loxoom di ko jox kenn nit daana dukkat ay bagage di ko toxale ci barab di ko jëmale ci barab daana togg togg toggal na boppam ab laax jox ko jëmm jox daa am lum namoon ci moom kon daana liggéeyal boppam mbooloo mi toog muy muy muy muy liggéey moom ci boppam di tàngal ataay moom ci boppam nga xam ne mooy raxas di teg ca taal ba di teggi di xelli ku nekk mooy papkaas bi dem ba ca yow mu jox la te du nangu kenn ku laal dara ci li muy def loolu misaal la ci ak toroxloom radiallahu taala anhu bu ñëwee ci borom bërëb bii moom képp ku ko xam xam nga ci moom ak toroxlu jëmm la woon joo xam ne dafa wàcce woon boppam maaseek doomaadama yépp ña suufee daraja daa toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom di kaf ak ñoom di tooñante ak ñoom di woo ay nit téléphone ay nit simple mu leen di woo téléphone ñu koy woo téléphone mu yuuyu euh, di képp koo xam ne kilifaam la mu di la liggéeyal ñépp xam yëg nañu ne dégg nañu ne sëriñ Cheikh Mamadou Fadil mas ko booleeg sëriñ Saalihu mu nekk ab chauffeur am diirub jamono ba sëriñ Saalihu yewil ko boppam ni mu daan taxawal Cheikh Abdou Khadir ci ajuma ju jot di ko gunge di ko encadré di ko ŋàbbal xutba bi di ko tegal ci kaw diirub li sëriñ Abdou Khadir nekk xalifa loolu ñëpp teg nañ ci seen bët ba ni mu àndeek moom ni ko sëriñ Blaat booleeg moom mu ànd ak moom euh, gunge ko Màkka aar ko taxaw ko ba mu joxe ay faratam yooyu yëpp ay misaal la ci ak woyofam ak toroxloom jëpp yitte joo xam ne mas na koo yëg doomu aadama yittewoo ko balaa am jàmm yitte jooje daa faju ak doomu aadama jooje ku mën a doon ak wàccuwaay bu mu mën a am kon jëmmagoog joo xam ne buñ dee waxtaane woyof baa ñuy waxtaane ak toroxlu moom doy na ci misaal toroxlu nag ngir bañ a guddal nekk na lu jikko ju am solo lool ci ab société amal njariñ lool it ki koy def ndax toroxlu day waral nit ñi bëggante ñépp woyofe kenn ku nekk da ngay bëgg sa moom ndax nit ko woyof ñépp koy bëgg ñépp a koy euh, yàkkamliku kon day tax nit ñi bëggante day tax nit ñi yëg ne ñépp ñoom ñépp ay bokk lañ day tax nit ñi yëg ne ñoom ñépp a yam day tax jëflante bi yomb ci diggante nit ñi day tax kiñaanante jeex soxorante jeex puukarante jeex waneb dayo jeex ñépp euh, joxante loxo euh, maase Euh, di kaf di jàmm am sutura am loolu toroxlu da koy def ci ab société waaye toroxlu nag jëmm ji koy def day nekk koo xam ñépp koy bëgg ñépp a koy safoo ñépp koy faale ki ko defi faw yëkk yàlla yëkkati ko ba mu tiim ay nawleem jàpp naa ne kilifa gi ñu doon tudd léegi muy borom béréb bi fa mu yàggoon cig woyof akuk toroxlu yéesul fen waaye nag yàlla yëkkati na ko yëkkati koo xam ne it yéesul fen ndax ñu dem ba ñu ne yoway sëriñ tubaa ci kaw suuf ñi sëriñ tubaa ñi yaakaar sëriñ tubaa ñépp yaa leen yilif yaa leen féete kaw ngay joxe ndigal loolu ak yëkkati féetewu ko kaw mu nekk ki njëkk a wuutu sëriñ bu mag bi ci ci ay sëtam loolu teraanga ju réy la dara ju kawe la yoo xam ne kon suñu boroom li yont bi sal sa waxoon ne maa tawaada ahadun lillahi illa rafaahu kenn du toroxlu ngir yàlla lu dul bu yàlla da ko yëkkati kon loolee eh, feeñ na bu baax a baax eh, ci moom kon toroxlu day tax yàlla yëkkati la day tax yàlla yëkkati eh, Euh, nit ki toroxlu it euh, ku ko def day yombal day tax suñu boroom tàbbal ko aljanna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na tuuba liman tawaadaa li ahlil faqri wal maskanati wa ahabba waaw waaw texe ñeel na képp koo xam ne yaa ngi wàcce sa bopp ngir yàlla di ànd ak ñi nga xam ñu ñàkk lañ di ñi nga xam ne ñu suufee ay daraja waaye Tuubaa ñeel na képp koo xam ne dangay dimbale ñi am ittee te di toog ak boroom xam-xam yi ak boroom xel yu rafet yi si Seydina Isa ibnu Maryam nee na tuubaa lil mutawaadiina innahum ahlul manaabiri yowma alqiyaama tuuba lil muslihina bayna annaas innahum yarisuuna al firdaws mu ne ñiy texe mooy ñi nga xam ne ñoo ñooy toroxlu fii ci àdduna bu ëllëgee yàlla dina defal ay tribune yu kawe ñu teg leen ñépp di leen seen nañ doon wàccee seen bopp ci àdduna yàlla yëkkatee leen noonu seen daraja ba ñépp di leen euh, seen mu ne ñiy defar diggante nit ñi xajam di jubóodikoo tam dañuy texe ñooy dem firdaws toroxlu day tax yàlla bëgg la day tax kii toroxlu yàlla daf koy bëgg alquran mi ngi wax ne yaa ayuha alladina amanu man yartadi minkum an diinihi fa sawfa yaati llahu bi qawmin yuhibuhum wa yuhibuunahu azillatin ala almuminin aizatin ala alkafirin ba aaya ba jeex waaw euh, mu ne ñi nga xam ne dañuy képp koo xam ne bàyyi na diineem génn ci lislaam yàlla dana indi ñeneen ñoo xam ne ñoom dañuy bëgg yàlla yàlla bëgg leen ñooñee boole na ca ñi nga xam dañuy toroxlu dañuy toroxlu seen bokki jullit euh, waaye dañuy jàggit ak rëy rëylu ci kaw yéefar yi kon toroxlu day tax am mbëggeelu euh, sunu boroom te mbëggeelu suñu borom ku yàlla bëgg day wax Seydina Jibril ne ko yéeneel ci asamaan wax ne diw yàlla bëgg na ko bu ko defee bu ko yéenee yàlla day daal def mbëggeelam ci xol yi ñëpp ñëpp su ko defee ñëpp dañ koy daal di bëgg kon ku toroxlu yàlla daf koy bëgg su ko defee bindeef yëpp it dañ koy eh, bëgg euh, kon defe naa ku yàlla bëgg nit ñëpp bëgg la ñëpp yàkkawli ko la nga ràññi ko lool yàlla yëkkati sa daraja loolu doy na ak teraanga doy na ak màgg te loolu mi ngi ci toroxlu kon ngir bañ a guddal jataay bi ñu tënk fii waxtaan wi di wax ne daal wàcce sa bopp toroxlu ngir jëmm yàlla jikko ju kawe la joo xam ne e, ñi yàlla tànn dëgg-dëgg baaxe leen fonk leen ñoom la koy jox te borom béréb bi ku ci ràññiku la woon kon ñu ñëpp nañ góorgóorluwaat bàyyiwaat xel melokaan woowu euh, muy toroxlu ak wàcce sa bopp ak bañ a gis sa daraja ak bañ a yëkkatiku euh, xam ne rek kenn nga ci sa biir bokk kenn nga yit sa biir nawle euh, ngay jaxasoog nit ñi nit nit rek loolu ñu bàyyiwaat ci xel bu baax a baax te xam ne loolu mooy indi jàmm moo indi bëggante moo indi nawlonte moo yombal ab jëflante ci sunu biir ñu ngi tënk fii kàddu gi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Amady ñu ngi lay sant bu baax a baax waxtaan bi am solo lool ndax ñu ko traité dafa nekk loo xam ne ñu ngi ci jërëjëf ndax xam nañu ne damay faral ma leen. duñ ay xaajam waaye ñoo xam ne ay misaalam yooyu ñu alayhi salaatu salaam ak ci saxaaba yi ak tamit ci ci ñu baax ñi waaye tamit tamit nit yi ngëneel yi nga xam ne moom la tawaadu am kon gën a xam ne ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ñu ngi lay ñaanal ñu yàgg te gërëm ñaan tamit mbooloo mi mbooloo mi nga xam ne ñu ngi yàlla na suñu borom def ak ñoom kon xam dënnam waaye nag ñu ngi sant siti alxaaji baara yi nga xam ni ñoonu ci boole wala fii dañuy wax ni fekkee ma ci boole waaye nit dina fekkee te duñu ko ca boole kon bu ñu na joxee kàddu ci ginnaaw sëriñ baara faal mii ñuy am lenn lu ñuy wax miin gu ñu ne miin ci kër ji Baara ak sama digganteeg Cheikh Moustapha Mbacké moo waral ñu jox ñu ci cër bi waaye lu ñu fi wax ñu ñu ko gën a man fuuf ñu ngi fi te ñoo ñu ko gën a man waaye nag ak yëg dafa foor lool yeneent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni wala tusaaxib man laa yara laka maa yaraahu si nafsihi bu leen ànd ak koo xam ne ni mu gisee boppam gisewu la ni ñàkk fayda mi ngi yem ci ànd ak ku la yëgul kon ñun du ma wàcc dañuy ji vraiment ñu ngi nuyu ku ñu ci wóoroon ñu dem kon di kanam yu war wax dañuy jox rek loolu mooy may tiit maa jiite muy sëñ seen alxaaji Ndindi mu mën a def commentaire ci li ko waral loolu doon doon waxtaane léegi bu ko defee ba daaneel kàddu la ñu ngi amal bu ci des bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci. jataay bii nga xam ne ci lañu nekk di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu boole ko ci jataay yi ëpp solo ci sunu dund jataay yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala ci la bi sallallahu alayhi wa waxoon mu boole ko ci muy jataay yi nga xam ne yàlla daf cay far ay bakkaar di ci yëkkati ay dara yàlla ñu ko yàlla boole ko xam naa ne daanaka commentaire yi jëru ko jëru ko woon day tolloog rek keppaar gi ñu nekk ndigal lañ fi wéyee moo waral ba lu ñu fi digal ñu defe ko waaye waxtaan yu mat na mat goo xam ne rafet na rafet goo xam ne jëlul woon di teg dara sëriñ li mu waxtaane di tomb bu am solo di tomb bu nurul lu yomb waaye lu jafe mu daaneele ko boroom ëtt bii di sëriñ Mouhamadul Amin Baara mi nga xam ne jëmmi tomb bi la woon bu doon dox nga xam ne kum doon ci ñun rek mën naa wax luy màndargaal ne sëriñ Alxaaji Baara tomb bii moom dafa nekkoon ci moom muy wàcce boppam sëriñ Afe indi na ci yu bari ca kum doon ci ñun li ma ko waxee rek buñ la joxoon mën nga cee indi yeneen ak yeneen ci màndargaal ne moom foofu la nekkoon des na ci indi yenn yu néew bokk na ca yooya moom am nay jamono ñu bari dañ koo xamoon barab bu ñuy wax Sonatel ba ñenn ñi sax daana wax ne dafay xëy lan moo ko fa daan yóbbu li ko fa daan yóbbu de mooy jaaxlek ay nit ñoo xam ne am nañu lu ñuy sàkku ca mu jafe ci ñoom ndax booba ngir nga abonné téléphone fix boo defee demande ngir nga jot sa téléphone sa kër ñu indi la daawul yomb mu nekkoon kilifa goo xam ne daawul tëju saaboo àggee ca woyofam nga fekk ko ca ëttam ba ca saa àggee it mu dalal la ca woyofam nga déglu la nga wax sa soxla mu gëm na it soxla sa daa war a faju ca moom da ko war a faj moo waral mu daan dagale ay dossiers yu bari document yu bari abonnement yu bari xëy dem Sonatel ngir topp tool ñooña seen abonnement yi ngir jot moo xam mu xam la ak mu ñàkk la xam nga xam ne dangay ñëw rek wax sa jaaxle jël say kayit jox ko mu daal di jàpp ne moom ci boppam kat moo war a faj soxla si soxla si mbokkum jullitam mii loolu demoon na ba mujj jege gi tax ba saa bu ñëwee am barab boo xam ne dafa féete woon ngir loolu du woon soxlay boppam du woon ay yittey boppam waaye yittey nit ñi la woon ca woyof nga moo war a it mu accessible ba nga xam ne ku agsi fekk ko fa mën a jot ci moom loolu màndarga ci mooy kon woyof gi moo taxoon mu amaloon njariñ taalibe yi lool a cheikh abdul fatah mi nga xam ne mooy sama sëriñ ibnu cheikh abdul fadil hafidahullah nee na sëriñ falilu daan wax ne yéen sëriñ si lu ngeen di jariñ seeni taalibe bay boo mu nekk fii ci àdduna sëriñ buy jariñub taalibeem na ko amal njariñ fii ci àdduna ndax yomal xeyaam moom sëriñ tubaa képp lañ fa yaakaar sëriñ fal loolu daan wax moo waraloon alxaaji ci ak dundam mandargaal loolu ci woyofam ga bokkoon na ci leen mandargaal ak woyofam mooy boo ma sànni dem ci barab bi mu dëkk boo ma masaan dem ci barab bi mu dëkk xam ne ku woyofal boppam a ngi nii lal ba daf ci daan jël ay téere ba mu fees dell toogu ya noonu ak ay bagage nga fekk ko mu wéeru ci ab fauteuil toog ci fu doye di ci yow nga xam ne booy xool da nga naan foofa yow si jëmmi bopp maanaam dëgg-dëgg xemmee moo fa toog fa moom mu doon ki mu doon ak wàccuwaay bi mu doon doon sëriñ Falilu doon sëriñ Touba di toog foofa yëmu ca waaye léeg sax mu fanaan fa maanaam léeg-léeg noonu mu wéeroo ci barab boobu ci barab bu suufee boobu ci yow ci say gët noonu lay far fanaan fa kon la muy màndargaal mooy bariwaa na ku daan riir ñëw jàpp ne boo ñëwee ci ay barab yu yéeme nga koy fekk ci melokaan yu yéeme boo ñëwee fekk ko ca suufeem googa ak mokkam googa ak doyee dalam àdduna googa loolu ñëpp xam nañ ko ci xam nañ ne bi muy doog a nekk xalifa sëriñ Touba radiyallahu anhu ca melokaan yooyu nekk ci barabu dëkkuwaayam yëpp dal nañuy tabax benn néeg ci ginnaaw boo xam ne néeg bu gaaw lañ ko def ngir ne woon saa boo xamee ne kilifa yi ñëw na président ñëw na wala kilifa yi yenn yi ñëw mu dalal leen fa néeg booba ku ne xam na ne bi mu amee juróom-ñetti fan rek daanaka mel na ne néeg yi ci des daanaka mel na ne néeg yi ci des ngir lan mooy dundin yu mu doon dund maanaam dara soppiku dara soppiwul ci moom loolu màndarga la ci bokk na ci li sëñ affaire wax léegi mooy nangoo déglu sëriñ alxaaji baar ak oyof gi moo waraloon ñëpp mën a ñemee wax ak moom ñëpp ñemee wax ak moom boo ñëwee ubbiku ga bu dee koo xam ne xam na ne kat yaa ngi yaa ngi liifantu ci làmmiñu arab dalay dalal won la safoo gi muy safoo li nga nekk dalay lay làkkantoog yow arab bu dee ko xam ne ku dégg tubaab la mu daal di làkkantoog tubaab pour won ñemeel la boppam ubbil la boppam saa boo nekkee koo xam ne sax xëy na miinoo ko tax nga xool ko xawoo ubbeeku moom moo lay won ne la man kat fii laa nekk sëriñ Cheikh Awa Balla sëriñ Fallou nee na ànd naag nit ñëw ci alxaaji baara xaw bëgg a wax soxlaam xaw a xaw a daal xam naa xaw a tëy tëy gi tax alxaaji baara ne ko xoola maa ngi lay xamal ne ginaar gu bootul booful maa ko lewet waxal sa soxla waay ginaar gu bootul booful maa ko lewet li may jeexale ci mandargam of gi sëriñ Habibu Mbàkkeem sëriñ Faliilu moom ko nett nee na dagg nag alxaaji baara aj màkk goo xam ne metti woon na lool nee na sànni jafe lool nee na alxaaji baara daf maa tungóom daf maa yanu tungóom ma jël xeer jox ma ba ma sama jamra yépp mu doog ma wàcc mu doog ko weesu dégg naa ci làmmiñam mu ne aji naa ñeen fukki yoon ak lu topp waaye mboolem bare bi aj yi fa ma ci gën a neex mooy munaa ak arafa loolu am na lu muy tegtale ndax munaa ak arafa mooy barab yi gën a metti ci aj am na ñoo xam ne buñ jaaree ci aj duutuñ fa dellu ngir ngir ngir conditions yi munaa ak arafa moom mu ne la ma gën a neex ci aj màkka mooy munaa ak arafa ndax boo fa àggee danga nga xam ne nit nga noonu la ko xewoon kon kooku foofu la nekkoon ci ak woyof yàlla ñu ko yàlla fayal sëriñ Afee waxtaan wi am na solo lool bu ñu bëgg ñoo guddal Eh, dafa tolloog rek ni ñu ko waxee woon sànq ci tàmbali bi ay taal ab taalibe lañ boo xam ne fii ndigal lañ fiy déglu bu ñu joxee ndigal sëñ ñoo def lu may jëfe ko waaye waxtaan yi matoon lool rafet na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xame nga yàgg na lool ndax ku ne dégg na wu Alaaji Xaadim Mbàkke la grand conférencier du Sénégal mi ma ñëpp xamal ki ko Alaaji Xaadim tudde magum jëmm la denc na kon kooku ba ma koy xam yàgg na lool waaye ci sëñ Masamba yi la bëgg a xam le ñaari baat yu gàtt rek muy ak baaxam akuk taalibeem wax nañu ni am na bi sëriñ Tubaa am ganuk naar sëriñ Masamba boof fa yaru lool naar bi di ko xool ba yàgg mu ni sëriñ Tubaa xanaa kii sa jaam la sëriñ Tubaa ni ko kii jaamub yàlla ñu toog ab diir naar ba tàggoo dem sëñ Tubaa ni jël sëñ Masamba ni ko déngal naar bi wax mu ne ko dégg naa ko de waaye bu ma amoon lu ma ko neexale dinaa ko neexal ngir xool gi may xool may nuru sab jàmm Sëriñ Tuubaa ni ko iskay ma sàmba loolu de moo gën ci yow moo ma gënal ci yow ndax bari yaa koo xam ni la ko eh, la ko la ko la ko xañ la mu yor àdduna ak alaaxira mooy jéem gu muy jéem a bokk ak man loolu moo doon Sëriñ Fallu jaay ak njuréelam bind na ko leer na nàññ kon Sëriñ Tuubaa xëy na bokk gi mënta ñàkk ndax mënee su ko bañ a tudd waaye nag li gën a wér moo di ak taalibe sëñ Masamba jaar na ak moom foofu beneen bi ci tegu mooy amoon na koo xam ne bu doon jamono bii dañuy wax ni ab dóorkat la ab trian tund wu mu dem ni sëñ ma ay sama bàyyi ñu koy rey ak xabban di ko joxe addiya ba muy def loola ba mu yaatu lool egg ci tund woo xam ni <laughs> tarbiya yi sëñ Masamba yu mag ñoo fa nekk miinuñu ko ci kër ma sëñ Masamba ñu trouvé ni sëñ Masamba du wuy juram ñu jàpp ko bisim bisimee ko sonal ko lool indi ko nag ci sëñ sàmba di ko ko boole ni ko fu mu dem day wër ni yaay way juram te ñun xam nañu ni doo way juram sëñ ma Masamba dañu wax ni dafa wax ni nañ ko wutal ndox dugal ko ci wanag wi te taxawu ko mu dugg ci wanag wa ñu taxawu ko mu sangu ba set ñu toggal ko laax mu xiwlu ca ba eggal sëñ ma sàmba génne gaalam yére ca gën a rafet solal ko ko yóbbu ko ca pénc ma ni jëmm ji dama bëgg lu waaye am nga terale ma ko ndax xool gi mu may xool def ma may baayam te xaw ma ko ñàkk gi mu nangoo ñàkk baayam def ma may baayam te xaw ma ko mënuma ko koo fay loolu moo di ak baax mooy jikkoy nit ju baax kon ci gàttal rek mooy ki ñu tudde bis bii muy diggante sëñ ma sàmba ba ci sëñ abdul baaqi maanaam delloo nañu buum ca boy bo bay booy ba kon dañuy delloowaat nag ci ki nga xam ni mbokk la ci kër gi bu ñu ko tuddee sant wa rek moo lay xamal ni manta tàggoog mbàkke muy buso buso ak puso ñoo bokk nu ñu koy binde buso ak puso askanu mbakke bu ñu doon piis bu ñu xotti koo buso ya leen di ñaw moo leen di gaar moo tax buso ak man ak Mbàkke mënuñoo tàggoo moo tax suñ Moussa Ka doon wax ni ndaw ndaw su fi taarooti naan dinaa saw sëy Mbàkke mbaate mbusóobee ndax ma am fa barke su ko defee kon dañuy bàyyi kàddu gi ak sëriñ Basiiru Buso moom mi nga xamante ni incha allah mooy war jël kàddu léegi bu daaneelee incha allah dinañu daal di dem ci ni ñu ko bindee ñi ci war topp ñu mën a wax seen kàddu sëriñ Bousso Bousso moom mooy wax ci alxaaji baara digganteem ak sëriñ Abdul Baaxi kon ñu ginnaaw bi ñu sante borom bi subhaanahu di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sant Serigne Touba bu baax ñu ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi Seex Muhammadul Muntaxa moom Serigne Basiru di ñaan njaboot ak Serigne Touba di ci teg ci nuyoo bi Seex Muhammadul Mustafa moom Serigne Masamba di ñaan sunu borom yokk ko wér yokk ko kàttan ba mu naan lépp mu àggale ko ci barkeb ahmadul xadim nit ki noonu di nuyu bu baax a baax sëriñ abu xalifatu sëriñ muhammadul fadil mbakke di ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral bu baax baax baax ba naa liggéeyal waajur ci toolab sëriñ Tuubaa bi mu àggale ko ci barkeb ahmadul xadim yàlla mën na ko yàlla na ko bu baax cheikh moom sëriñ muhammadul amin baara ak njabootu Serigne Bara képp mu mel ni kii na nag bu ñu jiit leen yoo boobu pare dañuy agsi rek tuddal leen lenn ci li nga xamante ne mooy délégation bi jóge kër Serigne Massamba Mbacké ci njiital Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Mahmoudan jiitu mooy waa kër Serigne Mahmoudan Mbàkke ci njiital Cheikh Mbàkke ñi nga xamante ne mooy kilifa délégation bi nekk ci bopp délégation bi di ñaan suñu borom bu baax te yàggal taxawaayam yu rafet waaye mi ngi ànd ak sëñ Mouhamadul Amin Baara moom sëñ Mahmoudan te it ànd nag mboolem waa kër sëñ Mahmoudan gépp nag ci biir délégation bi niki noonu waa kër sëriñ Mouhamadul Moustapha moom sëriñ Massamba di xalifa sëriñ Massamba sëriñ Cheikhouna Mbacke moo ànd ak akam moom it ci biir délégation bi ak waa kër gi yépp teew si ci jataay bi nit noonu sëriñ waa kër sëriñ Modou Fati Xari ci njiital sëriñ Issa Mbacke ak mboolem waa kër sëriñ Modou Fati Xari yépp teew si suñu àll yu Mbacke ak mbooleem waa kër sëriñ Mourou Faty Khary yëpp teew si nit sëriñ Abdou waa kër sëriñ Abdou Salaam gépp teew si fi ci njiital sëriñ Modou Mbacke ak i rakkam yëpp teew si fi ak mbooleem magi taalibe bi nekk ci kër gi yëpp teew si fi nit waa kër sëriñ Mamor Mbacke moom sëriñ Masamba ci njiital sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ak mboolem waa kër gi teew si nañ ni ki noonu waa kër sëriñ Abdul Xabiir sëriñ Cheikh Mbàkke ak nekkam ak mbooleem la aj ci kër mbooloom bay mu takku bàyyi ko nañ fi teew si jataay bi ni ki noonu waa kër sëriñ Saalix Mbàkke eh, ci njiital sëriñ Mouhamadul Mourtada Mbàkke ak mbooleem njabootu kër gi yëpp teew si nañ noonu waa kër sëriñ Abdul Baaxe Mbàkke ci njiital Cheikh Ahmadou Mbàkke muy xalifa sëriñ Abdul Baaxe Mbàkke ak jëwrinam sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Abdul Baaxe ak mbooleem njabootu kër gi di góor muy jigéen ñëpp teew si nañ fi noonu waa kër sëriñ Moodu May ci njiital sëriñ Abdou Salaam ak mboolem euh, taalibe ak mag yi kër gi yépp teew sanañ fi noonu waa kër sëriñ Modou Lo Issa njiital sëriñ Abdou Baaxe Lo ak mbooloo mu takkoo takko teew sanañ fi noonu waa kër sëriñ Daam Bali Lo ci sëriñ Cheikh Lo ak mboolem magi taalibe ya ak mbokk yépp teew sanañ mu mel ni ki ne nag nit ki noonu am nañ mbooloom taalibe yi nga xamante ne ñoo jóge ba Kër Ndaw ci njiital sëriñ Moustapha Safi Ndaw ak mboolem mbokki kere yépp teew si nañ fi ak mag yi taalib yi nga xamante ne ñoo aju sëñ Massamba gépp ci njiital sëriñ bay mbaalo géey bay mbaalo géey teew na fi ak mboolem taalib yi yépp mi ngi noonu toog ci wetu sëñ bi kon day mel ni ki na mbokk yi ñii ak mbooleem jigéen ñi aju ci kër sëñ ma gi ñëpp teew sa nañ fi mbooleem jigéen ñi aju ci kër ñëpp teew nañ fi loolu nag li muy tekki rek mooy délégation bi nga xamante ne moom la sëñ bi waxoon wax dëgg yàlla day tekki na rek diggante bi diggante la boo xamante ne alaaka wuddiya la boo xamante ne mu mayëz la bu ràññeeku boo xam ne ku nekk xam na ko kon nag xam naa loolu moo doon ñi nga xamante ne lañ woon présenté ñu ngi jégalu mbokk yëpp di santaat yàlla ci jataay bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.